rahmatullahi wa monsieur les délégués des quartiers notables responsables autorités coutumières et religieuses mesdames les présidentes d'associations de groupements, présidentes de cellules responsables jeunes associations sportives et culturelles monsieur le président du avec le staff qui vous accompagne Monsieur le Président d'Embasek de l'Association des handicapés, Monsieur euh, l'honorable député Adam Hassen, je voulais dire quelques mots, Monsieur le Président. Quelques mots pour boucler notre périple aujourd'hui, le périple qui nous a amenés dans les 4 C, les quatre communes de l'anciennement grande communauté rurale de sangal bambilor nous avons été à tuaon nous avons été à Bambil, à Sangalkam, nous avons été à Bambilor et nous voici à, à Djahaï, Nous avons donc rencontré la communauté autochtone des Libou qui ont créé la région du cap Nous avons aussi rencontré les collectivités déplacées de Guédiawaye, à cause des inondations de Pékin et qui sont aujourd'hui à Taoufir et à Djahaï. Ça veut dire que nous avons rencontré le pouls même du développement du Sénégal. Les populations autorisées, autochtones, et les populations déplacées. Nous avons eu les deux types de problèmes, Monsieur le Président. Parce que pour aller à l'Assemblée nationale, il faut savoir ce que l'on y fait. Les populations autochtones ont besoin de leurs terres. Elles ont besoin de cultiver, elles ont besoin de faire du maraîchage. Elles vous l'ont dit. Les populations déplacées de Taoufir et de Djahaï ont besoin d'urbanisation. Elles ont besoin d'éclairage public, elles ont besoin d'eau, elles ont besoin d'assainissement, elles ont besoin aussi de voies praticables, carrossables. Ces populations vous ont choisi. Vous, Monsieur le Président Diopsi. Ces populations ont choisi votre liste, la liste de CPJ Nailer. Ces populations ont choisi les hommes et les femmes de valeur que vous avez investis afin qu'une fois à l'Assemblée nationale, vous puissiez porter leur programme, leur projet, mais surtout leur espoir. Monsieur le Président, vous avez entendu les populations les jeunes n'ont pas d'emploi. Quand bien même, ils ont des diplômes, ils ont des formations qualifiantes, ils ont des formations expérimentées déjà sur le terrain. Les femmes n'ont pas d'emploi. Elles n'ont pas accès au crédit parce que les financements ont un trop fort taux de remboursement. Les femmes ne travaillent pas parce qu'elles ne sont pas accompagnées dans l'exercice de leurs fonctions. Les femmes ne travaillent pas parce qu'elles vont trop loin de leur foyer, donc elles n'ont pas le temps de s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Monsieur le Président, l'espoir est porté sur vous. L'espoir est porté sur votre groupe, pour ne pas dire votre parti. Parce que rectification pour rectification, nous ne sommes pas une coalition. Monsieur le Président Diopsi est un parti politique. C'est le seul parti au Sénégal qui a osé aller aux élections tout seul. Il a avec lui des hommes et des femmes de valeur qui ont accepté de l'accompagner parce que connaissant quelle valeur il représente. Vous êtes le seul homme politique à oser diriger sa liste dans son propre parti politique. Et ça, soyez-en remerciés et félicités. Monsieur le Président, nous ne vous avons pas fait rencontrer des non-votants. Nous ne vous avons pas fait rencontrer des jeunes pas expérimentés. Nous vous avons fait rencontrer des pères et des mères de famille, des hommes et des femmes de valeur qui ont des cartes d'électeurs. Nous vous avons fait rencontrer de grands électeurs, des personnalités qui peuvent faire voter d'autres personnalités, des chefs de famille qui veulent faire voter d'autres personnes dans leur famille, mais des jeunes riches d'expérience et d'ambition qui vont faire voter la collectivité autour d'eux et j'en ai, je viens d'en entendre un jeune. Monsieur le Président, je me fais un honneur pour avoir été ministre de la République, avoir été parlementaire, avoir été maire dans la ville de ma naissance, je suis fière de me ranger derrière vous pour cheminer avec vous pour le devenir du Sénégal. Mboké, yi ngi di délégué des quartiers notables, autorité coutumière et religieuse

Qui ku nek botu ci ginaaw nit te nit ke la way ko doylo ngeen am association organisation bu ma ñëw fi set ci leen je ak sama chammi la may sore ci wax ji dama bëgg diiram bu de moom la xam muy sama muy mairie de ville et ak équipe municipale ba def campagne gagner élection am bureau nek cadre di recruter di changer échelon di joxe ay politique Nek directeur de publication mom organam di journaliste de formation Fo daje ne Mangi maa Su liggéey suba jot rek mu woo Adama Sène valeur yi may wax ci fo Dia du valeur u kon ñu suivre un peu lima ma doon wax parce que joxe ki am moy joxe ki amul day yéene nit limuy muy joxe te sañ ko mooy li mu moom mooy dooleem ak xelam Fodé Dia daan wax toujours Adama Sène mii ne ko waxal ngoone mu ñëw ci arène bi ne ko fu ma nekk bés bu jógee ma bàyyi foofa keroog ba ma jógee ki ma lim fii keroog ba ma jógee la dem ci bureau ba tëj ko damm ca caabi ji ànd ak man Fodé Dia moo ma indi fii ci jaxaay moo ma fi indi woon nag moo tax mu ñëwee ma fi indiwaat moo ma fi indi woon moo tax mu ñemee ma fee indiwaat lu ma fi dugal rek ci loxoom la jaar lu ma fi dugal ci loxoom la jaar c'est plusieurs millions waaye la tax plusieurs millions yi amul solo mooy jeex na tey te nit ñaa ngi nii kenn bougé wul kon nit ñi ñoo am solo bi mu ñëwee mu dugal ma ci néeg bu yaatu néeg bu rëy néeg bu am bànneex néeg bu am jàmm néeg bu am sutura muy néegu dem ba Seck néeg buy gis ca xool néeg buy dégg te ay noppam néeg bu dund jaxaay mu dugal ma ci néeg bu dund jaxaay bu xam jaxaay waaye bu yéene jaxaay mu ne ma toogal ma toog mu ne ma fii la la ñëpp di fekk léegi te waxuma ko woon maa ngi ñëw comme ni ma ko def léegi rek may toog muy indi jigéen ñi may toog muy indi góor ñi may toog muy indi tailleur yi may toog muy indi couturière yi may toog muy indi ñuy araw may toog mu indi ñuy wal ma toog mu indi ñuy jaay ma toog mu indi ñuy xooslu néeg bi fees saal bi fees mbedd mi fees ma nekk alaaji Demba Seck lu jot mu ne ma yow mii laa bëgg li nga wuti sama kër nga am ko Ablaye ba xam na li may wax Koura Dieng xam na li may wax soxna Lalla xam na li may wax waaye sama staff bii ma àndaloon xam nañ li may wax ma ne ko nu ñu koy defee tudd ma sax ki sant ñan te ma takkoon ko xarit soxna ja wa koy mi ngi ni sama gannaaw di ma talal loxo ndax fala takkante won ak mom xarit ma wax sama programme ba mu jeex xamal ka nak doxalaguma programme bi ndax dama nek ak sama xarit sama càmmiñ sama xaritu xol bu baax bu ma bëgg mu bëgg ma muy president Diop ma bëgg and ak mom and ak yéen ñu dem assemblée nationale suñu noppé nak ñu doog doxal suñu programme ñu dugg jaxaay wax dëgg yàlla nag yëngal ñëpp waaw jigéen ñi ànd ak ñun góor ñi ànd ak ñun xale yi ànd ñun waaw borom doole yi tiit nag tuuti xaw nag tuuti commencé yëngal sax waaye xam nga bu ñu la joxee dëkk juróomi at jéemoo ca dara soo toogee ba mu des weer nga ci jéem dara ña nga jëm sax ñoom nga yab ñaboo kenn sax ña jëm ñooña nga yab suñ la dénkee baat juróomi at waxoo ci ay nit. mu des un mois de campagne nga waaxu indi ambulance nga indi ay frigo yabuñu kenn yéen ñii lañ yeb yéen ñii leen bëgg a jël ay torchon di leen fomp ko dafa am loo xam ne mbajum kanam la borom a koy fay ku la tanul yëgu la fonk la su toogee ba gisu jëm si yow mu naan la moytu la defal attention yow la yeb yebul boppam ndax ma nga tëral jabaram muy climatisé ci ay doomam yéen ngeen di xoostu ci naaj wi mu ne du ngeen dem ci liggéey si yéen loolu lan la man na ku ma mosal yeb dolli woo ko man ku ma mës a yeb dolli woo ko ndax koo mën a toll rek ma jox la ginnaaw des ak yàlla damaa bëgg nag sama nawle jigéen yi bu leen ci boole ay wax bu leen ci def fitna doom yi yéen leen jur boroom kër yi seen yos la te nag jigéen yaramam day liis bu leen xuloo bu leen xeex bu leen xaste bu leen gaaruwaal te bu leen kenn boole seen biir àndandoo leen nekk benn àndandoo rek takkaay seen digg xanaa xamu leen poste député yi daf ñuy gunge rek poste député yi fii ñu toog rek ëpp na salaire député par weer fii ñu toog nii rek ëpp na un million ci liñ fi def te député un million lay am te ñii ma àndal tey xam nañ ne jataay bi jataay nañ ko juróomi yoon dog fee yegg si kon loolu loolay solo si xam nga luy solo si ànd ak ñoo xam ne fonk nañ la far nga leen am nañ sa jot te am nañu xam-xam wan lañu lay dimbali problème bi yëpp foofu la nekk kilo lay nag li lay dimbali di la ci gunge te jëlul benn yoon loo xam ne daf koy téye bañ naa bàyyi ak sa liberté defe naa ne kooku dafa ne ay ci ñu dem ci développement man dama bëgg ànd ak yéen ci développement damaa bëgg su ma wootee kenn ku nekk kott sa oto dugal ci sa ñetti morom ngeen ànd wuy si te du ma laaj paas ndax am na fépp am na fépp gis nga embouteillage bii ci Dakar fukki oto yow yoo wàññi juróom-ñett yi jigéen ko moom embouteillage Dakar fukki oto yoo wàññi juróom-ñetti jigéen ñee ko moom te dañuy liggéey rek def leen seen xel ak seen xol ci loolu jongante yu sew sawaan yi bu leen ci nangu c'est pour vous diviser xam nañu jigéen ñi suñu mang mang euh, àndandoowee mànkoo nekk benn dinañ mën a yëkkati ay montagne moo tax dañuy jéem a def ay fissure ay koñ ay ruq di jéem a dugg seen biir bu leen ko nangu jàpp leen ni kenn ku dem rek yéen la demal ku jiitu dafa jiitu rek waaye mënul dem moom kase la preuve Adja Koura Dieng mii mooy tëdd liste départementale waaye benn kàrtam kese du ko yóbbu assemblée kenn ku ne da nga ciy def sa carte ndax la mu war a représenté war koo indi ci mbooloo mi waaye tam chaise li ñuy bari bari ku ñëw sa bos nga tooge te teraanga àdduna noonu la mel bu kiy jëlee lii rek keneen day jël leneen ma leen di ñaan ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. ndax dañu wóorul Ablaye Ba président Diop si deux minutes lay wax waaye lii may wax daf maa far ndax si la élection te boo dajalee ay magum yàlla jëm da ngay wax ak ñoom ma bëgg ñu def ci fulla ak fayda élection du caaxaan ku ci def erreur bala nga kaa fajaat juróomi at le 30 ku juum juróomi at ci kanam nga koy fay loolu nag ëpp naa juum seet leen ki gën ci yéen ci xalaat seet leen ki yem ki yéen ci mbagg seet leen ki ngeen mën a waxal mu leen di dégg seet leen ki leen nawloo waaye oto yu mag yu ñuul yi wóorul de oto yu mag yu ñuul yu bari te mën a accéléré wóorul de seen wax sax du àgg seeni wax sax du àgg moytu leen itam nag mënu kook sañu ko loolu man du problème si man parce que àddina moo mel noonu loolu du problème xam nga li sama problème rek yéen na ngeen déggoo rek yéen na ngeen déggoo rek asakay suñu yéene amaguñu ko ba di ko joxe kon ngeen xam ne dooraguñu li ñuy def fii du politique ànd penc la ànd defar gox la man departement de Rufisque laa bëgg te damaa bëgg mu rafet damaa bëgg mu ñoŋ damaa bëgg nit ñi liggéey damaa bëgg ñu jàng damaa bëgg ñu faju dama bëgg ñu am accès au crédit bu leen ko farfarloo bu leen ko farfarloo ànd leen ak ràññee ànd leen ceeg teey bu leen ko gaawant carte bi dafa am valeur te su ngeen juumee da ngeen di def erreur ki am nag ba pare di président di coalition mën ba pare yor ba pare am lu yaatu te xëy na suñu gox bii gisu si dara du ngeen jéem a seet seen benn waa gox ngeen boole ko ci bu jógee sax ànd ak yéen dafa gën a wóor dafa gën a wóor ki am ba pare sant na yàlla soxlaatul dara waaye ñun ñii maak yéen ñi amagul dara te ñoo dajale suñuy cotisation ba am dara suñu walbatikoo di wéttalante di seetante di gisante ku nu romb ak puseeram duñu saf man de yéen a ma saf yéen naa bëgg a amanteel yéen ñii laa soxla yéen ñii laa bëgg yéen ñii laa soxla asalaamaaleykum wa rahmatulah baal ma. salaamaaleykum waa Jaxaay. maa leen di nuyu yéen seen tur ak seen sant maa ngi di lu seen teewaay tey vraiment am naa kontante am na kontante Adja Koura jàppal ni kontaan naa si li ngeen def tey laala jàppal ni kontaan naa si li ngeen def sama ñaar ñii nag jàpp leen yow tamit muy demb muy Ablaye ne fii. dagen dese liggéey bu bare bare bare xam nga lu ngeen dese liggéey bu bare man ngeen andal man kuma tek loxo ku ne liggéey par force lay doon liggéey par force nak dama ci bolé sama conseil municipal gars yi jox guñ ma sa tur mais par force ngay ànd ak man ak foofu mu ne dama ne li nga mu ne wax ci ñun la mu ne wax ci yow dama né à partir de tay jappal ni yow par force ngay ànd ak yow conseil municipal joxo joxante loxo nga wax Demba dana jox loxo nga jox ko loxo ma jël sama loxo tek ci kaw Adja Ngoné ba fas ko dama bëgg rek ngeen xam ni li ñi def ni campagne bi ñi def ni pour tay la ak ëlëk ak gannaaw ëllëg yamul ci tay rek campagne bi ñuy campagne du campagne yu benn fan campagne la boo xam ne léegi tey ëllëg ak gannaaw ëllëg ndax jaxaay dafa bari problème problème yi nag sanc baax na waane lii ngeen sanc ñu sancal leen lii mu wax sànq rek laay jële waat fa nekkoon ndox moo leen fa jële woon ñu indiwaat leen fii bu xiinee doo nelaw kon sa wa dir que la ngeen newoon ba legi jógagu leen lolu nak dama bëgg ngeen juk ci xam nga lan moo tax ngeen di juk moy fi ngeen ni ngeen bolo tay ne ñun kat dañu bëgg a ci li moy da ngeen di bolo wat seen doole yeen ñëpp tan ki nga xam ni bu ëllëgé bu démé assemblée nationale xéxal leen ñu dafa leen jaxaar ni ko war defaree lolu nak bu ngeen am ko. yéen ñi nga xam ne yéen nekk département de Rufisque yëpp da ngeen di xeex pour Adja Koro Dieng mii nekk député gagné département moom ak Adama Sène mi mu ànd ak ñoom ñaar bu ñu la leen ba ñu gagné département bi ngeen dox ko wax ko kenn ku ci nekk fa nga dëkk ak ka nga nekkal ak sa xarit bu nekk fii wala bu nekk ci biir département bi ngeen dem waxanteeg ñoom heure wax dafa jot de ku noppi rek yaa tooñ. heure wax dafa jot heure dox dafa jot heure waxante dafa jot heure jàppalante dafa jot heure liggéey dafa jot ñu nag ci liggéey rek la ñeen di woo néew la ñeen kaala jàppale ñu ne dañu ne kaala ñu ànd liggéey te jox nañ leen firnde liggéey ndax ñun lu ñuy wax lu nekk day am firnde da nga ciy teg baaraam boo ci tegul baaraam saa wu nekk li ñuy wax nekkul dañoo bëgg kenn ku ñu àndal ku ne bu suba nga gis sa bopp ci politique bii ngay dox yow suba di tàjju di fecc ba ngoon jot ñibbi amuloo dépense jàppoo ci dara yaakaaroo si dara ñaanuñu yàlla ci àddina ngeen di ànd ñun te doon loolu leen dal jàpp leen daal ni fii am ngeen ay partenaire ñun ku ñu ànd rek partenaire nga si ñun jiitewuñu kenn dañu ne kaale ñu àndandoo liggéey dañ leen teg ci yoonu liggéey mbaa ñu wutal leen jumtukaay yoo leen liggéeyee mbaa ñu wutal leen financement yoo leen liggéey ñu noonu la ñuy doxalee ñun loolu mooy suñu politique loolu la ñu bëgg si yéen li ñu gëm nag mooy dañu investir ay nit yoo xam ne si yéen la ñu bokk même boo nañu jàppul ngeen jàpp ñi ngeen dëkk ndax kenn ci ñoom ku ne am na yéene bu baax si yéen te bu sañoon fii ngeen dëkk noo bokk fi yéen ñëpp dëkk bi baax en maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen di rafetlu seen teewaay di leen jégalu asalaamaaleykum